ma jëmmalul boppam soxna jaara moo José asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Modou Seck bokk ci membre daayira bi dañuy wax nag waaye jëwriñ ji moo nekk ci biir dafa ñëw fekk fekk ñu ko fi rek moo tax ñuy jël kàddu waaye waa ñi moom nii la demee mbokk yi ma wër nii yëpp ci jëwriñ yi lañ bokk di sant bu baax ci mbokk taalibe yi nga xam ne dañoo ñëw bokk ak ñun waañ wi ci liggéey bu am solo bii waaye di sant yàlla tamit bu baax ci bokk giñ ci bokk ndax am nañu ko bëgg te mënuñu ko loolu moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax waaye di sant nag kilifa gu yi ci biir nga xam ne ni moo ñu bokk jabatu ñun ñëpp di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te defal ko ak wér. ñu teewe màggal gi ñaan suñu borom dimbali ñu di ko teewe ay at yu bëree baree baree bare baree bëri sant nañ bu baax sant mbokki taalibe yëpp maa dañuy jàllale kàddu gi ci yeneen mbokki jëru ni ndax kii mooy moom lañ grisé ci waañ bi tey muy sëñ Omar Jong ak sëñ Xaarim Samb nii ñoom ñoo taxawu waañ bi tey waa ñoom ñoo ko taxawu wax dëgg yàlla saytu ko saytu bu am solo ba tax na ñun daanaka dañuy réer ak a feeñ rek li ci mat a def lépp def nañ ko ba fi mu ne nii ñu ngi toll ci soor soor nañ war a commencé séddale bi xanaa kon dañ leen di jox kàddu ñoom bu ko defee ñu euh, ñaaxaan mbokki taal bi nga xam ñoom lañ seqal waañ wi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di siyaar baax a baax a baax a baax yéen waa académie bi ñu ngi leen di siyaar baax di leen jox seen wàccuwaay di jiital siyaar bi ak sunu kilifa gii nuyoo sunu kilifa gi si biir mu Cheikh Amadou Thierno Mbacke ñu ngi koy siyaar baax a baax a baax waañ wi nag nii dong Euh, tey moom mbokki taalib yëpp ñoo wàcc si waañ wi góor góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ndax liggéey bi moom daanaka ñun ñoo nekk si bopp bi waaye wax di yàlla oyofal nañ ñu ko ba mu ndax mbokki taalib yi ku demee ni ko sëñ Moodu ni mu ko waxee sëñ Omar mi ak sëñ Xaadim ak sëñ Muntaxa ba ak Yuusu oyofal nañ ñu liggéey bu baax a baax a baax daanaka ñun dañ si réer ak a feeñ rek ñu ngi leen sant bu baax a baax te li liñ si wut ñun ñëpp yàlla nañ ko dajeek muy ngërëmu sëriñ Tuubaa yàlla nañ dajeek moom Ah, kenn ku ne bu déwénee nga yokk ko yokk yokk ba yëg ko nag waaw ba nga ba mën a yeewal ne sëñ bi ay trente nag cinquante jëm kaw waaw ñu ngi koy ñaan daal si baaxu si baaxu rasul laay daraje soxna si ñuy liggéeyal waaw na jërëjëf. si ñëw we juma jëmmalul boppam soxna jaara